te gars yi ñu siyaar leen bëggee leen bu baax a baax jóge nañu léegi léegi arène nationale ah bëggoon leen jox résultat yi léegi léegi nii Gris 2 daan na ki nga xamante ni moo di doomu daangu vraiment doomu daangu demérité woo bëre nga wax dëgg fa yàlla dem nga ak Gris 2 taa boo xam ne combat Gris 2 yëpp mësuma gis Gris 2 bëre taa bu toll nii kon gàcci ngaalaama ah doomu dàngu ndaanaan nga champion nga mais béréb bi dama ci xaw a gis tuuti doole quoi dama ci xaw a gis tuuti doole bu xaw a feeñ ci euh, ngeen baal ma ci image bi ah image bi xam naa tey moom du mel ni ngeen ko bëgg quoi mais xam nga tey dama jóge arène nationale rek daw ñu Almadies quoi moo tax image bi xaw a kii quoi pour sustu rek jox leen information yi nga xamante nii moo xewoon arène nationale xam naa émission bi suba xaar leen ñu foofu ah incha allah dañ leen jox lépp loo xamante nii moo xewoon arène biir arène nationale tey jii nii ci ci dimanche bi mais pour le moment daal ki nga xam ne moo di Gris fan la jëm digganteem ak Sa Thiès digganteem ak Fra digganteem ak Alioune Seye ñett ñii laa leen tanal ndax Gris jot na mu bëre ak ñoom wala déet gars yi Gris dafa bokk ci làmb nee naa Gris dafa bokk ci làmb digganteem ak Sa Thiès digganteem ak Alioune Seye Fra digganteem ak ah kii nu di tati a Sock dafa war a leer ñeenti combat yi nii laa tegal Gris 2 yéen nag yéen ay xool gridé ci 4 personnes yi kan la ci wara am ci sen sen youtube ngoy tv xamna nak dinañ delsi ak sëriñ ibu borom ngoy mbayar waxtan ci mënul ñàkk aca gaay bu leen a ah doomu bawol bi ñagas de itam mom itam amna ndam ah mais inshallah lepp suba dinañ ci ñew andi len resultat yi tout tout tout ngeen assalamu alaykum wa rahmatullah yeen wa ngoy yeen wa aduna kep ko xamantene ni abonné go rek dawal ci ngoy tv nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko IGTV c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen